premier temps, euh, indiquer je suis là au nom du chef de l'État pour présider à la remise des clés de 300 véhicules communément appelés des taxis de proximité. Initiative qui découle euh, d'abord de la volonté du chef de l'État exprimée dans le cadre du plan Sénégal émergent euh, pour procéder au renouvellement du parc automobile au niveau de l'urbain, au niveau de l'interurbain et même euh, euh, chez les gros porteurs. L'État, depuis 2005, hein, a commencé donc, cette initiative. Euh, en 2016, avec les taxes de proximité, une phase pilote. En 2019, une deuxième phase avec 200 véhicules de proximité et aujourd'hui les 300 pour lesquels nous voulons de remettre les clés. Euh, ce qui est à encourager et surtout à saluer, c'est que cette phase découle en fait d'une initiative privée, encadrée par les services de l'État, les études, mais aussi euh, donc la Direction générale des transports je souhaite vivement que de telles initiatives donc euh, se poursuivent. Il est tellement important que des privés se mettent dans cette dynamique et accompagnés en cela par l'État du Sénégal. Et demain, nous allons voir et constater, un, ce renouvellement-là qui est important au niveau de la région de Dakar, puisque comme vous au niveau de la région de Dakar, l'État est en train de développer le transport de masse à travers le TER, mais aussi à travers le BRT, ce qui augure une nouvelle configuration euh, donc du plan de transport au niveau de Dakar et qui va s'articuler autour effectivement de ces transports de masse. Donc nécessairement, la sécurité de l'usager est garantie par ces nouveaux véhicules, mais aussi euh, euh le transport, le déplacement assurée d'une manière régulière par l'ensemble de ces modes de transport articulés autour de l'essentiel. Donc c'est important pour ces genres d'initiatives, non seulement de les accompagner, mais de faire en sorte que qu'il y ait une discrimination positive, ce qui va encourager un petit peu euh, la mutation la transformation du transport illégal ou illégitime vers le transport légitime et légal. Et l'État va accompagner cette dynamique à travers l'ensemble de ces instruments, euh, accompagnant ainsi les acteurs. Dans le cadre justement du renouvellement du parc, le Fonds de développement des transports terrestres, dans le cadre de sa tournée, avait annoncé que euh, a un projet de renouvellement de 450 000 euh, véhicules d'ici ans, mais pour un budget de 1 000 milliards. Est-ce que c'est réalisable Vous savez, euh, avec euh, l'initiative que nous sommes en train de vivre comme ça, donc euh, avec les acteurs autour euh, des acteurs financiers, comme je les appelle ainsi, Mectrans, qui est un acteur majeur, euh, des banques. Les, la, première, la deuxième phase était financée avec la BNDE. Aujourd'hui, NCA Bank accompagne Mectrans et même d'autres acteurs. Avec l'initiative privée, on peut dépasser ce budget prévisionnel. Puisque ce qu'il faut encourager, c'est plutôt l'initiative privée. L'État mettra le mécanismes et les outils pour accompagner. Mais c'est l'initiative privée qui soit à mesure, en tout cas, de faire ce grand bond, ce bond important. Mm. Et nous, nous nous inscrivons dans cette dynamique. Le Fonds de développement des transports terrestres, avec les mécanismes de financement à sa disposition, pourrait accompagner dans une configuration bien définie. Comme le fait présentement, par exemple, l'Institut qui est en charge l'organisation de la circulation au niveau donc des régions de Dakar et Thiès. l'État mettra à disposition ces pour accompagner et atteindre ainsi l'objectif de renouvellement entier du parc automobile. C'est important de le dire. Le, les taxis de proximité constituent à peu près un volume de plus de 35 000 véhicules. 35 000 véhicules. L'interurbain, 15 000. Les taxis, plus de 25 000. Et ça, c'est vraiment une évaluation minimale. Mais eh si on l'élargit à l'échelle nationale, c'est des centaines de milliers de véhicules de transport euh, qui seront en tout cas mis à disposition des usagers qui seront transportés en toute sécurité voilà, et en toute tranquillité. Président Macky Sall vous a, demandé hier en Conseil des ministres de porter une attention particulière sur le suivi des travaux du BRT. Euh, en est Mais vous savez, les travaux de BRT suivent vraiment leur cours. Aujourd'hui, des sections sont libérées. pour la circulation générale. Au mois de mars, l'ensemble du circuit et des systèmes seront libérés et mis à disposition. Comme nous l'avions dit, euh, le premier bus sera présenté théoriquement, en tout cas si Dieu le veut bien, au mois d'avril. Des essais suivront. L'exploitation démarrera dans le dernier trimestre de 2023. Nous sommes dans le timing. est que ce projet-là, vous le constater, dans l'environnement du BRT, est un projet majeur, important, et qui va transporter de 300 000 voyageurs, voilà, euh, en un temps record, hein, c'est 45 je pense, de, de Guédiawaï à Petersen, et cela va contribuer à l'amélioration de la mobilité au niveau donc de Dakar. monsieur le ministre tey euh, réceptionné nga 300 euh, taxis euh, est-ce que li ni mel bokk na ci liy xeex clando yi mooy oto yu illégal yi. waa jërëjëf d'abord dañuy sant suñu borom julli ci rasulullah remercier maanaam initiative bi mun nañu wax ni le président Macky Sall boo jëlee le plan Sénégal émergent transport priorité maanaam daf ko dugal ci objectif yu njëkkam yi mu ni renouvellement du parc automobile renouvellement boobu leen maanaam taxi ci lañ bokk muy transport urbain car yeeg mini car yi nga xam ni ñu ngi ci soit interurbain wala car yu nekk ci urbain tel que les aftu et cetera depuis 2005 état du Sénégal commencé na renouvellement euh, ci maanaam avec aftu lii nga xam ni moom la ñuy wax les taxis de proximité ñu tuddee ko clando mais tur bu dëgg bi mooy taxi de proximité amoon na fas pilote en deux mille quinze en deux mille dix neuf mu am phase boo xam ni am na ñaari téeméeri taxi yoo xam ni dugg na seen ñëw na fi te jii fi may waxee yéen caabi yi may joxe ci turu président de la république ñetti téeméeru taxi de proximité maanaam banlieue mais lu ci am solo mooy ñi nga xam ne ñu ko ŋànk ñoom ay privé ay personnes privées ànd ceeg Mectrans ànd ci ak banque bu ñuy wax NCA banque ah, ak yeneen acteurs yi nga xam ni dañ ci dugal seen ay loxo ba lii mën a am état bi encadré ko ànd ceeg CETUD encadré ko parce que daf ko professionnaliser parce que c'est important ñu ne dañ ko professionnaliser créer ay GIE yoo xam ni à l'image de AFTU waaye améliorer pour que lii mën a tegu ci yoon mën a jaar ci yoon donc loolu dafa nekk lu am solo. pour ñu wax ko parce que état bi mën na encadrer mais initiative privée mooy mooy tax mbir mi développé wu te loolu moo am avec le secteur du transport euh, te ñu gis ko gisoon nañu weer yële maanaam avec les véhicules force yu dem interurbain tey jii c'est le taxi c'est les taxis de proximité donc ñuy sant bu baax maanaam les promoteurs Mectrans NCA Bank l'ensemble des acteurs yi nga xam ni ñoo jël initiative bi ba tey ñu indi ces trois cent taxis bu ëllëgee gëm naa ni yeneen ak yeneen centaine de taxis dana ñëw nekk des taxis yoo xam ni moom la les taxis clando parce que transport bi gis ngeen état bi dafa am lu mu commencé transport bi au niveau de Dakar par exemple le TER mu ngi transporter plus de soixante mille passagers par jour bu ëllëgee BRT bi dana daw transporter trois cent mille passagers jour. léegi transport bi au niveau de Dakar il faut que mu réorganiser waat autour de ces transport de masse maanaam les taxis de euh, proximité am yoon yoo xam ne ñoo koy dox ñoo koy daw les l'urbain maanaam que ce soit les artu et cetera am noo xam ni dañ koy da yoon bu ñuy jaar zone yu jaar Dakar Dem Dikk aussi am zone yu jaar loolu bu ñu ko defee dem bëgg dikk bi non seulement wax ma sax ci biir Sénégal waaye ci biir Dakar bi nga xam moo concentré plus de 70 pour cent noonu téeméer ba jël juróom-ñaar fukki yi dafa concentré ci Dakar ni ñu koy organiser nii demee ba ëllëgee dana yombalal dem dikk bi loolu moo tax initiative ba nga xam ne ñii jël nañ ko autour de Mectrans ñu mën ko ñu mën leen encourager encourager les acteurs ci lii nga xam ni maanaam doxal nañ ko. lu ëpp 1000 milliards le fonds de développement des transports terrestres soxla fii ak 5 ans pour renouveler 450 000 véhicules naka la ministère bi na la jàppale pour ñu am koppar boobu. xam nga état bi dafa jël ay juntuwaay teg y a les directions la direction générale des transport teres am na CETUD nga xam ni moo amee wàllum organisation maanaam transport au niveau de région de Dakar et de Thiès te gëm naan dana yegg ci région yëpp mu jël le fonds. développement de transport terrestre dugal ci ay koppar pour mën a accompagner mais comme nu ma ko waxee ci njëlbeen ñun lu ñuy encourager mooy maanaam initiative privée état bi am le maintenant nu mu nu mu leen di nu mu leen di jàppale nu mu leen di yokkale te loolu le fonds de développement des transports dana am rôle bu am solo dana ci boo xam ni dana ko ci taxaw mais ñun man en tout cas ci ndégul président de la république c'est encourager l'initiative privée parce que am nay résultat bu résultat amul woon phase pilote du am première phase am deuxième phase am c'est parce que dafa dox avec l'initiative privée moo tax phase yi am te gëm naa ne yeneen phase dana ñëw tey trois cent véhicules mais man gëm naa fi léegi ay maanaam diiru néew peut-être ay mille véhicules wala deux mille véhicules dana am dem nag ba remplacer segment bu ci nekk segment bi ñu nekk nii le transport de proximité muy clando trente cinq il y a trente cinq mille véhicules euh, gëm naa ni war na ko ëpp euh, les taxis Dakar mais c' est vingt cinq mille vingt cinq mille véhicules l' interurbain maanaam les sept palaces militaires yi mais kooku c' est plus de quinze mille véhicules donc bu ñu koy connaître di xayma noonu mais c' est des centaines de milliers de véhicules yoo xam ni yu yuy askan bi ñoo nekk ci biir Sénégal c' est loolu dañu war dem fii la jëmmi jamono avant deux mille trente cinq parce que suñu eggee émergence dañoo fekk ñu renouveler entièrement le parc de transport de transport urbain interurbain fii ci Sénégal